Diagne solution. <coughs> comme ni ko doyen waxee ak euh, camarade cest à bu ñuy wax Ousmane Sonko dafa daw dem Ziguinchor nañu def chronologie lu waral lii yoon yoonu Sénégal yoonu ñëpp la. ñëpp a ci yem. képp ku ñu woo ci yoon da nga war a dem ci yoon mais depuis presque quatre mois à cinq mois benn Ousmane Sonko rek. mooy dem tribunal ci huit fois xel nangu na ko ci politicien te ñi ngeen gis ne ni li ñuy bañal Ousmane Sonko pourtant nangul nañ ko ñoom ñi nekk ci ñoom kon bu ñu waxante dëgg impunité am na ci Ahmed Suzanne Camara fu mu bokk du ci Macky Sall waxul publiquement àdduna yëpp di ko dégg nañ dem taal kër Ousmane Sonko nañu rey usman Sonko pour jàmm am ci senegal anamu. du mu ngi këram dinaa nataay demul ci débat ñu invité ko ci beneen tele mu wax publiquement ñi rey Fulbert ak loolu xam na leen anamu mu nga toog këram kon nag nga jàpp na ne Ousmane Sonko li ko dal ak li mu waroon taxawee li ci gënoon rafet mooy impunité bañ a am ci réew mi comme ni ko Macky Sall man dama ne sa Macky damay ne buur Sall moom buur la ni mu ko bëggee ni mu ko sentiree ak ni mu ko xalaatee. parce que waxal yàlla mooy gis nañ lu ne fàng te kenn dooru ko jeex li na fàng mooy li ñuy def Ousmane sonk presque ci 4 mois yi 5 mois yi boobu bu waree dem génn këram Sénégal du am jàmm kon Sénégal dama jàpp ne benn problème la am la ñu am muy Macky Sall benn problème la am muy Ousmane Sonko mais buy dem war wuyu ji fu ko neex muy muy euh, euh, procès bu mu war a dem c'est normal son droit. mu dem jaar fu ko neex Macky Sall bañ nga ko bañ nañ ko biñ ko fi euh, woolu tribunal euh, police centrale moom dafa dem sa jaar sens interdit Ousmane ko xam nga jaaru sens interdit yoon la mu jaar fu ko neex dama ne na dem Guinée na dem Mali na dem fu ko neex ma heure bi ko juge bi jox na ko fekk bureau lu ci mënti am juge bi moo koy daan mais bu waree génn gis ngeen euh, armada bi ñuy génnee teg ko ci cité kër góor gi ba képp que Cité Keur Gorgui doo am jàmm képp ku far ci Ousmane Sonko doo am jàmm gis nga peut-être li ñu mën a wax ci détenus yi ñu téye presque plus de 400 personnes ñu téye leen ñëpp ci Ousmane Sonko xanaa bu doon même 400 personnes yi bu ñu ne woon ñaar def nañ ci defoo je condamne mais dana dama koy nangu nit ku wax publiquement saaga wala nga def loo war a def ñu jàppale c'est normal nga bokk ci Ousmane Sonko bokk ci keneen a ca yem loolu moom dëgg la al yoon bi mais nag loolu nañ ko def ci. ñépp mais du ñu gis ne ne ku bokk ci Ousmane ko boo waxee boo saxee booy ñëw sax émission dañ la ne ah moytul de moytul de yéen journalistes yi sax léegi bu ngeen di génn seen kër sa waajur muy sa jëkkër wa jabar wala say doom ah yaayaa maman booy dem moytul nangam de ndax boo kii dañ lay jàpp lu ko waral parce que dictature bi ñu bëgg imposer te moom Macky Sall moo ko doon wax ci Ablaye Wade moo tax gis nga bi muy nettali Firawuna ak Moussa mu ñëwaat nii moom waxoon na ko mais xamutoon na ne Firawna Moussa boobu mu doon wax mooy Ousmane Sonko ak moom kon jàpp naa ne nii mu koy bëgg a jaru ko Ousmane Sonko impunité bu ñu ciy wax ñaata plainte la bind xam ne ne kii nañ ko dara am na poursuite wala am na benn quoi que rek ci justice wala Ousmane Sonko du sénégalais wala bokkul ci réew mi bu defee plainte waruñ mën a di instruire plainte même bu dee benn sax ñu woolu ci nit au moins def ci benn acte mais dara Mariama Sagna dañ ko rey violé ko waa léegi ki ñu rey violé ko moom amul droit dee na kon moom léegi day naxasaay léegi kii nga xam ne ne moom nee nañ dañ ko violé te reyuñ ko te ñi ko waroon dëggal ci viol sa wax léegi ñi ko waroon dëggal viol amul kon cest à bu ñu naxante li na fàng kenn du ko jeex dañ gis ñëpp

chef rek dañ la war a téye. d'accord bu dee loolu d'accord naa ci mais nag ñu gis na ne ni ñu koy sonalee bu waree dem bu waree jàng ji julli maa sax boo bëggee génn ji ñu ne ko du julli ji xanaa gis ngeen vidéo yooyu loolu lu ko fi waral. technique vous avez une bonne communication ngeen jaay. ah lu ko waral cest à dafa am loo xam ne ne xel daf ko nanguwul. problème man je suis apte que ñu lépp lu ñu def. que te defuwul nañ la teg ci yoon c'est normal. parce que Sénégal Sénégal ñun ñëpp la république bi ñun ñëpp ko bokk ñun ñëpp a yor carte d'identité nationale kon nag loi bi ñun ñëpp a ci yem Ousmane Sonko bu defee lu mu war te def nañ ko teg ci yoon yóbbu ko ci yoon mais yoon boobu na fekk yoon bi yoonu mais yoon bi bañ a jéng aussi tamit yoon boo xam ne ne pour yoonu Ousmane Sonko la ak yoon boo xam ne ne pour ñu bokkul ci euh, Macky Sall lu leen de lu ñu def seen ginnaaw bandal boo bokkee ci Macky Sall moom yow yaay bañ saagaal nit ñi dóoral nit ñi bañ nga ko keroog am na benn euh, waay ju ñu wane ci taxi ne ku wax makki Sall du nangam ma def la noonu ba gaañe ci fii ci euh, xaar yàlla waa kooku anamu dañ ne woon woolu nañ ko anamu léegi mu ngi ci mbedd ki ñu jàpp faux billet mun a wuy yàqu naa du bugg ay milliards nga yor ko nga ne yàqu naa. àdduna yëpp di ko dégg de waaye léegi dañ ko tëjoon lu lu ko génne dañ ne suukar bu yéegoon suukar bi deux ans ba léegi wàcc wala dootul wàccati c'est-à-dire non nañu jàngale ñëpp ko gis kon loolu noonu moom jarul sax di chercher de midi à 14h. gis nga ku nekkul ci yoon nañ la teg ci yoon. nag yoon boobu na yoon ba ñëpp yem ci ci ñëpp yem na ci ñëpp yem bu ci yemee rek buñ ci wooy Ousmane Sonko incha allah c'est normal ñu protéger ko. moi je vais revenir un peu